actuellement mu mel na coow li nag bari na lool wax ci bari na waxtu jot ñi ngi ci rajo yeeg télévision yeeg ci internet yeeg leader politique yi nekk di wëreelu ci àddina beek a def ay discours yoo xam ne ajutum ngooñ mu am nag ay discours yuñ ci jàpp yoo xam ne liñ doon wax naan jaa al xaq wa saxaxal baatil inna al baatila kaana saxuxaa dëgg rek mooy mujj bu ñuy wax dëgg mooy mujj nag lu mel ne doxinu Sénégal bii moo tax ñuy wax dëggay mujj man damay politique waaye politique bi may politique nag politique ma politique wu damay politique ngir sama réew jëf ju bon yi ñuy def Sénégal nag moo tax baatu politique yàqu ba kuñ ne ku ne damay politique rek ñu defe na ci nit ñu bon ña nga bokk. te effectivement tisma noonu la demee waaye ku xam baatu politique xam ne lislaam moo njëkk politique te sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ku gis ni mu doon doxee ngir réew mi te teg ko ci politique képp ku bëggal sam réew jàmm da nga roy ca sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ndax sëñ Cheikh li mu taxawaloon ngir sowe réew ma boobu réew mi amagul indépendance mu ngi doon jóg di wër addina bi di dem monde arabe di dem ci pays asiatique yi di dem Europe di dem États-Unis d'Amérique te fu mu fa dem diplomatie ya fa gën a fort ñoom lay dajal te nekkul woon chef d'état chef religieux la woon waaye vision dafa kawe woon te laata muy dem xool na réew mi ba gis na fi manqué lépp mu dem jëggaani ko fekk fees dell la ko njàng nag xam nga xam ne lu xam-xam di doxal moo ko def moo waral mu exploité école yi ci biir Sénégal ba nit ñi jànga man mii ci laa jànge te bu loola amuloon nag ni fekk na senegal ay bàyyi ma la ñuy doon dañ leen di saaw ci am ñax di leen joxub cox ñuy lekk grâce à Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou mu soxna Fatma Thioub Serigne Cheikh xam ngeen ne ci xam gi mu xam réew mi aw doxinam moo taxoon mu soloonu dàllam nekk chef religieux ndax daana wax ne ab imam war naa mën a jóge ca jumaa ja wala jàkka ji jiite boo ñëwee fekk ko ci ordinateur bi muy kaj-kaj jàngalekatu xam-xam ci fànn yépp mën nay jàngale xam-xam ba pare yor avion di ko dawal waaye ñiy jàngale fiq mën nañ koy jàngale ba pare nekk ca bato ba ca ndox ma di ko dawal nee na lislaam tënkul nit ki rek mu war a yem ci jàkka ja wala daara ja moom vision foofu la nekkoon te effectivement loolu mooy li am moo taxoon mu doon dox la mu doon dox te néewam dafa sori woon te gis-gisam gis nga ne tey jii bi ñu àggee ca lam daan wax xam nañ ne dëgg la Serigne Cheikh Mbacke à 1858 dafa taxawaloon benn comité d'organisation de chefs religieux comité d'organisation des chefs religieux bi mu taxawaloon nag dafa tànnoon xalifa généraux yi nekkoon ci biir Sénégal dajale leen waxtaan ak ñoom. yee leen ci réew mi li muy ami ëllëg daal di woo xalifa général de Mouride Cheikh Mamadou Fadal Mbacké woo Cheikh Mamadou Lamine Kunta xalifa général Kunti yu daal woo maam Ibrahima Niass xalifa général bu Ndiassane wala Niassène boog damaa bëgg damaa jum woo maam Abdoul Aziz Dabakh xalifa général Tidiane ci senegal woo Mame Mandione Laye xalifa général de Layène woo sëñ Ibrahima Diop grand serigne de Dakar waaye mu wax leen ne leen li tax ma di leen dajale ñu bëgg a waxtaanee diine ji mooy réew mi dafay waaj a am ab constitution constitution nag li muy tekki mooy téere bi réew mi di àttewoo ëllëg liñ bëgg lépp ci biir téere boobu lañ koy bind. jamono bu nekk lu ca lu ca war a xew ñu génnee téere bi liir ne constitution bi waxoon na lii comme noonu nag ñoo bokk suñu këri maam te li nu sunu maam bàyyee mooy diine lislaam kon nañ fexe ba bu ñuy tey cere jii nañ ci dugalaale li nga xam ne mooy li lislaam bëgg muy ak jub ak islaam adapté ko buñ ko ci dugalul kat bu ëllëgee dana xajam te bu xajamee it sunu reer ci la nekk te noon noo ko nar a reere loolu la sëñ Cheikh waxoon waaye gis nga déggooti ko ga ca am ak tasaare gañ tasaare jullit yi ci accord bañ joxe woon dégg ko pour war ko wote tey gis nañ ne xalaati sëñ Cheikh yooyee tey jii le te gis nga loolee ba mu ko waxee it benn conseil supérieur la wax ne dañ koy taxawal boo xam ne si ay article lañ koy wutal buy saytu loolu article un deux trois quatre cinq boo xam ne si benn bu ci ne bu nu ko détaillé dangay gis ne sëñ Cheikh lii moo ko taxoon a jóg. mu nekk lu am solo nag waaye boo xoolee tey sunu réew mi bi ñu demee ba istiwaar jox sañ Seex dëgg kii ñuy wax euh, Ousmane Sonko bi nga xam ne moo jiitee parti Pastef bi mu taxawee di ko wax ay gént lañ ko teg dañoo daal di jël ci jamono ja ca gannaaw waaw ca jamono ja ca gannaaw jël Seex Anta jël jël du ja teg ngir xonetal nit ñi ndax français yi ñoo bëgg tënk Sénégal ci doxin wi ngir seeni intérêt propre ba mu ko waxee nag gis nga lam ko jaral bind na ci livre jàpp nañ ko fi keryal nañ ko fi sosal nañ ko fi dóor nañ ko fi àgg nañ ci sax ci bëgg ko rey loola lu ci Ousmane Sonko daj ci ñaari at yi mburu du ko daj ku bëggul sam réew nag loola doo ci àgg booba ana leader politique yi ñu ngi ci système bi kenn ku nekk di seet noo yoore sa loxo ci ndab li loolee Ousmane Sonko doon def nag ñoom ñoo doon taxaw ci télé yi di ko weddi waaw nee na léegi dañoo war a jëfandikoo sunu làkk Ousmane Sonko wax na ko làkk officiel bi français la war a doon gis ngeen le président Motin Motin Sall gis nga li wax dem na ba benn moment mu taxaw bi wër réew mi ci boobu ta muy tàng tàngooram woowu àgg na ba yow proposé lu waa Ousmane Sonko boobu ndekete ñoom lii faru Ousmane Sonko bi jënd nañ ko. kenn ku nekk jël ko nag def ko deru bay muy bukki bu def deru bay làqatoo ko bëgg ko naxi askan wi ndax xam nañ ne li Ousmane Sonko am ci askan wi ba bu laajee ndigal bu ko laaj bu laajee dara lu jëm ci réew mi nit ñi fekk si ko fa jox ko ko ñu bëgg a muuroo der boobu nag bëgg a nax askan wi. nga gis ne ba waxee loolu ne dañoo war a soppi làng wi moom mu tey sàll mi booba kenn tontuwu ko parce que ki jiite réew mi douze ans yàq jikko yi yàq jalgati li nga xam ne mooy sàrti réew mi. réew mi amatul benn institution boo xam ne si Macky Sall jëlgatiwu ko tey bu taxawee di wax naan làkku réew mi dañ ko war a soppi lenn la ci dañu di ko wax ci la ndax xam-xam nekkul ci leer bu boobaa du saf xorom ndax gisuñu kenn ku mu ko war a wax ndax moom moo yore responsabilité kon kooka sàcc na ci la nga xam ne moom la Ousmane Sonko doon wax te ñu doon wax ay gént la boogaan gi daani nga xam ne moom bu xooloon turu parti bi rek wala mouvement bi day rëkk la deltu gannaaw ndax gëm sa bopp moom amul njëriñ ndax sa bopp doo nga la ñor gëm sam gëm yàlla gëm sam réew gëm ku gëm réew mi moom lépp lu réew mi di servir da ngay bokk ci biir taxaw ne fii di njuuj njaaj di dem ak a dikk di dem ca Macky Sall ak a dikk affaire hypocrite boobu nag moo tax waa opposants yi bëgguñu ko boole ci seen bopp ba gis nga bi ku bëggee intégré ci li nga xam ne mooy Yewwi Sénégal sax moom dafa lank di fëggub dënn boole kook arrogant di wax di fëggub dënn di jaay doole ak defe na xaalis moom moom boo ko xasee am rek mën ngaa taxaw te xaalis bi mu am ci système bi la ko am te bu waxoon tey ba ñu jox ko ci réew mi wala jox ko ci benn pàcc tey nawoon fa woon rek tey bu demee tey taxaw jéem-jéem dara sottiwul mu dem ay prénance mënut a jàll mu taxaw naan système bi système bi kan moo ko fi indi ku dul Ousmane Sonko dañuy xeex système bi di wax même chose la Ousmane Sonko waxoon kon bëgg na la Ousmane Sonko am mu am ko waaye nit ñi teel nañ ko naan da xam ne kii day bukki bu sàngoo deru bay kon kooku foofu lañ koy intégré ku Khalifa Sall tey moom war naa taxaw fii ci ab télévision ñu di ko invité muy taxaw di wax ci xaalis senegal naan xaalis bi dañ ko war a soppi kooku moom la mu doon wax lépp ci livre Ousmane Sonko bi la ko jëlee bëgg koo campagne te moom xamul na yàqu na ba noppi mënatut a baax te dee na ba noppi te dee di dundaat moom mënatut a am. loolee muy bëgg a réparé ba ko réparé nag ay waa discours Ousmane Sonko nag xam ne li wolof ñaay daan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee jafe moom ci système nituk système la. ci système la ma sa nekk naka jekk mënta xëy xëy xëy xëy xëy ne day soppiku ci système bi dem ànd ak ki nga xam ne mooy Ousmane ba ñu leen boole it intérêt boppam ko ci bon ba mu demee ba am intérêt boppam it waraat na noonee mu waree it bu ëllëgee bu gisee leneen ne lay waree réew mi réew mi gën a dugg ci gut te damaa wax sax nag ne maam ku sant Sall moom fi mu ne dañ ko war a jox feet fii ak juróom fukki at ci kanam madame Sall moom ëppati naa wax ci biir pale bi moom. kon nag kooku bu taxawee tey ci 2 ñu koy wax muy wax ay affaire u xaalis xaalis bi bi ko Ousmane Sonko koy wax fii yéen ñëpp yéen a ngi koy dégg ba ba Idrissa Seck taxaw fii naan ko waaw CFA bi nag moom baax na moom CFA baax na sensé lànk bi sensé CFA bi sans taxawal suqali réew mi loolu Ousmane Sonko moom la campagne ba li ko dal lépp ci la ko dale léegi nag nga jël waxi jàmbur di ko campagne te wóor na nekkul ci sa xol na bi afwaahihim maa lay laysa fi qulubihim di wax loo xam ne si bëgg intérêt doo nga tax nga di ko da waaye yow nituk système pire nga loolu moo tax yàlla nattu leen ba bu ñu waxee du saf xorom du saf du saf géej gi loolu mooy mooy mooy la ci am kon nag ñii ngeen di dégg ñuy def ay ay ay discours wa wax dafa yomb waaye wax day ànd ak jëf wax ju ànd ak jëf nag mooy li Ousmane Sonko koy def wax ngir naxaate nag mooy lii Bougane Gueye dana Khalifa sàll di def ñoom dañuy niti système système bee leen tëgg ci système bi lañ juddoo lañ am lépp système bi lañ ko amee xam nañ ne li Ousmane sonk am jaay na bakkan te seen bakkan jëralu leen ko ba Ousmane sonk am popularité dégg nga ñoom ñu xëy xëy nag bëgg a jël popularité Ousmane Sonko boobu bi ñu koy tëj ci kaso bi yëpp ñu ngi seet ñu ngi kontaan bi ñu ko rajee ñu ngi kontaan léegi bëgg a jël nag léegi électoral Ousmane Sonko tax kenn ku ne di sensé ay discours yoo xam si li ngay wax gëmoo ci dara kon loolu moom mooy li nga xam ne tey man man moom laa indi ci ñii nga xam ne jot na maa déglu si yéen i wax waaye li ñuy wax ajutum gooñ jërë ngeen jëf